solal moom la solal simis bi yaay mag solal cimisi bi ma ne ko ci cimisi bi la mu ne ma waaw nga koy wayal lan ma naan yee eh, eh. ma naan ko ana fana zekele ke mene feke zekele eh? oh, temps yi nag da nga am talent way dama garaaw way boobu kat moo ko wayati kii Bill Clinton dégg nga maanaam Bill Clinton de laa loolu Bill Clinton day way Bill Clinton du woon waykat Bill Clinton waykat la woon avant muy nekk dégg naa architecte dégg nga architecte président <laughs> bonjour à tout le monde bonjour à toutes chacun amis téléspectateurs ñu ngi leen di nuyu mbaax nga koy jënd waaye nga koy waxaale tànn gi ngeen ñu tànn jërë ngeen jëf ci loola ba di fi euh, taataane li nga xam ne moom la ñuy def chaque euh, matin mu di ce matin c'est à nous jërë ngeen jëf ndax àllarba bu jot it dinañ fi dikk ci yéen ci li nga xam ne moom moo di wàllu yoon ndax ñu ne censé ignorer la loi ci loolu la ñu sukkandiku daal di leen taxawal rubrique boo xam ne da leen di xamal seen wareef ak seen yelleef jëmale ko ci wàllu yoon loola lay euh, àllarba jële passé waxtaan nañ ci xale bu jigéen bu am ñam macha allah te elle avait bien réussi la chose mm. beaucoup de gens ont apprécié on a eu des échos de partout il a fallu que ñu régler reverb bi pour écho bi wàññeeku tuuti parce que xam naa dañu nekkoon ci chambre d'écho bu bien ah. et elle a été juste exceptionnelle mm. euh, aujourd'hui je vais pas dire bonjour à Toro en première hein. je vais dire bonjour à Nabou Na comment vas-tu très bien alhamdoulilah Pape Sidi bonjour bonjour à tout le monde di nuyu bu baax ñi nga xamante ne ñoom itam ñoo ñuy seetaan à chaque fois ci 2STV euh, euh, ni ma koy faral di waxee ce matin seetaan daanu dañuy xëy eh, indil leen li nga xamante ne moom moo jëm ci ko Pape Sidi waxee eh, ñëpp war nañu xam ñu eh, koy li nga xam ne moom mooy rubrique bi ak actualité ji ndax ba tey ci suba ba booy déglu ci rajo bi di nga dégg ni am na ay li nga xamante ne moom mooy ay jàppante yu dox ci politiciens yi ak ni ñu koy defee mm. arme yi nga xam ne ñoom ñoom la faral di gis ak arme armes blanches yi mm. ci kanam dinañ ci waxtaan incha allah loolu lañ fas yéene détaillé ci kanam loolu la ñuy def ba bagage yi dugg mm-hmm. gan bu dikkee dañ koy teral Ibrahima Baldé luy ci charge de l'éducation Sénégal nag danoo baaxoo bu ñu amee jëyee ñun ñëpp àndandoo waxandoo ci Euh, lu fi mel ne li fi jotoon a am bu yàggul dara muy fuite yi amoon ci bac bi ak BFM bi yenn cas de tricherie tout le monde en avait parlé mais quand on constate des trucs euh, exceptionnels dans l'éducation on en parle peu mm. c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il a choisi de dire des choses qui sont bien au niveau de sa branche qu'il nous anime tous les mercredis dans la rubrique éducation Ibrahima Baldé Baldé maa ngi lay siyaar maa ngi delloo di nuyu ñu toog ci plateau bi di nuyu téléspectateur 2STV yëpp di wax ni euh, ñu ngi ci jamonoy résultat scolaire mhm. donc euh, dafa baaxoo chaque année aussi tamit ñu ci war di waxtaan parce que fuite yeeg euh, jotoon nañ ci càmbar lu sore sore sori donc tey ñu ñëw jukki leen li nga xamante ne mooy résultat yi nga xamante ne yenn écoles yi ràññeeku nañ bu baax ci yenn résultat yu baax baax yi donc euh, ñu war a doxantu fii ba Daara Jolof pour euh, indi leen euh, résultat wu CM ba fa nekk. Mhm. muy nouveau lycée bi. bu ñu doon supprimer benn application Sénégal. Hmm. am na ñaar ñoo xam ne dinañ dof te am naa ci firnde. Hmm. ñaaxarañ loo day dof buñ Snap buñ ko supprimer woon ak Thioro Mbar Ndiaye bi hmm. et passe plus de temps sur Snap. waaw que sur son lit. lii la yàlla def. Coro maa ngi <laughs> maa ngi lay nuyu Coro comment vas-tu je bien Pape Sidi maa ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yi xam naa ne snap bu ñu ko supprimer woon ci ñaaxarañ loolu lay metti ak yow man mën naa toog semaine du ma snap par contre damay xool rek. waaw yow ne c'est que doo doo doo synapse mais li ngay xool si synapse bi ba da nga espionner nit ñi. te yow synapse ñu siiw ñëpp xam nga leen moo tax loo ci wax kenn du ko weddi daal dégg nga tàccoo yaa ngi kuul maa ngi cool Pape Sidi gis naa li nga ni nga xëyee ak man tey mais amul problème. c'est que li nga may jox naan ma réglé ko wàññi wàññil ma ko dafay affiché soo bàyyi synapse mu bàyyi la bàyyi sama téléphone bi nga xamante ne loo ci gis wax ko ci télé bi ba gis heureusement ba yow doo gis lu garaaw sama. ayca Kardiata Niass yi bonjour tey moom ami ñëwul moo tax sama maquillage bi kenn xamul lu muy nuróol. bonjour maa ngi remercier Thioro Mbaye Ndiaye mi nga xam ne moo fa jaar nee naa ko tey amee bu la seetaanee sera fier de toi di nuyu ñoo bokkal plateau bi ainsi que. au moins tey amoo ay autoraay yu déraillé. ah loo bëgg a wax foofu. kii paa man kay maa waroon paa Sénégal dégloo ti leen Thiès kaay waxtaan di nuyu nos très chers amis téléspectateurs yi nga xam ne ñoo safoo la première chaîne de télévision privée du Sénégal rawatina nag 9h jàpp 10h30 nous sommes là pour vous faire plaisir alors restez scotchés à notre compagnie. dinañ dikk ak yow léegi ci actualité du net Mamadou. Fa nga ne. otoraay di xeetina àllum kaañ waxtaan ak yéen i sàq suuf see jalaañoo tey ñu jalaañoo ba saa si kii jalaañoo te ay waa Sénégal dégg nga. Eh, nga tegoon foofu. ah ok na ngeen def mbokk yi ñu ngi leen di siyaar di leen déggee ah am naa kontaan parce que sandwich bi moom neex na. Eh? vraiment sandwich bi ñu ngi lay sandwich nii. lañ la dóor tey bii kay waxuma la bolognaise waaye bii moom. Margarita la xaw ma noonu la <laughs> li gën ci ñun ci suñu nekkin saay suñu yeewoo dañ ci euh, compas lëf à la Moussa Sène euh, ci li nga xam ne moom moo di euh, li gën ci ñun moom la ñuy woowee bien-être en français c'est avec Thioro Mbaye Ndiaye c'est maintenant voilà mi nga Pape ñu commencé ba tey dañuy def ci anana démb on en avait parlé wax leen nga ne li nga xamante ne moom lay def ci sunu yaram yépp mhm. mais tey dafa am benn pàcc bu ñu bëgg a jël c'est que ça va plus intéresser les dames mhm. muy lu jëm parce que ananas ni ma leen ko waxee démb ferñeent yi moom euh, dafa baax torop ci suñu wàllug euh, wér-gu-yaram waaye nag itamit baax na lool ci li nga xamante ni moom moo di suñu euh, peau ndax dafa am lu ñuy woowee enzyme broméline donc enzyme broméline boobu dafa baax ci li nga xamante ni moom moo di suñu yaram suñu dex donc ba tax na dafay agir ci manière bi gën ci li nga xamante ne moom moo di suñu wàllu po ndax mën nañu dimbali quand même ñu ralentir lii di vieillissement de la peau ndax lépp li nga xamante ne moom la làmboo ci wàllu ferñeent wax naa leen ko euh, sànq dinañu dimbali ñu xeex wàllu vieillissement prématuré ndax nag dafay joxe lu bëri ci wàllu euh, antioxydant du coup daf ñuy dimbali ci suñu wàllu wér-gu-yaram waaye vitamine C bi mu am itamit tax na dafay tax suñu peau gën a jeune. Mhm. mais également ñu am une peau sans rides moom mi nga xamante ne moom moo di ananas waaye itamit dinañu dimbali ñu utiliser li ñuy woowee cellule morte ndax euh, ananas dañu koy woowee exfoliant naturel. Euh, ba tax lépp luy cellule morte mën na ko dindi waaye itamit dafay hydrater en profondeur li nga xamante ne moom moo di suñu euh, peau. niñ leen waxee woon ni que citron boo ko defee ci sa diw dafay euh, agir de manière positive ci suñu peau. dafa noonu la lii di euh, ananas tamit di agir de la même manière euh, ci suñu peau te daf lay jox éclaircissement bu naturel c'est-à-dire bokkul ak produit yi nga xamante ne boo ko defee. mu xeesal la ñu ne la dafay yàq sa yaram non mën na la ci dimbali ba tax li nga xamante ni sax moom moo di jus naa mën nañ leen conseiller de temps en temps ngeen di ko ajouter ci seen lait de corps bu ko defee ngeen di ko appliquer ci seen peau di ngeen gis lépp luy ngëneel yim leen mën a jural wax naa leen ko sànq sa yaram du sax suukar non doo ko laal muy tax suukar parce que tu n'as pas besoin quand même jël litre jus d'ananas def ko ci benn bouteille yu euh, diw tu vas pas faire ça donc dañuy xam rek euh, naka la ñuy doser affaire yi bu ko defee mu gën ci sunu yaram wax naa leen ni que moom ak citron euh, daanaka ñoo yem ay effet ci lu ñuy euh, def wax naa leen ni itamit benn verre d'ananas en tranche ak demi tasse de papaye en tranche ak benn cuillère de miel loolu itamit mën nañ ko boole boo ko jàmbee. Mhm. boo ko boo fexee ba mu tas yépp mën nañ ko def masque. moo xam masque pour yaram wala masque pour xar kanam itamit euh, baax na lool ci suñu wàllu euh, peau boo ko bàyyee mu agir pendant 15 minutes nga rincé masque la bu naturel bu nga xamante ne euh, dafay defar bu baax suñu der parce que tamit on en a besoin produits yi ñu utiliser yu ci bëri day màggetloo suñu yaram nañu faxal di utiliser les produits naturels Tathio ma laaj la benn question bu bokkul ak bi dara yaa ngi ci anana da nga fi mës wax ne sa nopp bu amee ay affaire yu nekk si biir yooyu di taq mel na luy kole sa baaraam bi boo ko génnee. te muy jaune waroo ko dindi. à la base loolu mooy nettoyer suñu nopp c'est-à-dire ñun dañoo am habitude di def coton tige. ci suñu nopp man keroog génnee naa mais dama bëggoon xam lan mooy risque yi quoi est-ce que dinaa dee wala c'est clair que doo dee c'est clair que doo dee mais euh, li ñu leen di wax rek mooy que da ngay gis ñoo xam ne matin midi soir coton tige mi ngi seen nopp c'est-à-dire ñun coono bi ñuy daj ci suñu nopp suñu nopp jaru ko parce que nopp bi dafay nettoyer boppam te loolu noonu ñun ñu jàppee tilim bien que neexul se un peu désagréable mais boo gisee mu bëri ci sa nopp sa à dire que ci jamono jooju mi ngi def lu travail bi ñu koy demandé travail mooy consister ci nettoyer sa nopp donc loolu moo koy nettoyer de manière naturelle. Mhm. ñun nag malheureusement yenn sa day xasal nopp ak yu mel noonu on est obligé jël coton-tige def ko suñu nopp mais nopp laa coton-tige. ah moom taa ñu ngi créé coton-tige ah eh est doo ko laaj ñuy créé coton-tige. mais coton-tige tamit nag dëgg yàlla pour raxas nopp la rek ba pare non boo bëggee daaj moom da ngay jël ganaar gu nen ganaar gu kii tëngu ganaar tëng wi xam nga tëng tëng wi ngay jël ci génn gi am na jurgóor yu ndaw yu faye nga rocc ko uh-huh. fal espère <laughs> ngay wax ganaar gu nen agut ut gu jigéen <laughs> waaw wi tëng nga jël ca génn ga uh-huh. am na dunq yu sew yu nooyu fa ne nga dindi partie bu xaw a dëgër bi uh-huh. bàyyi ba mu des partie bu kii bi nga tooyal sa baaraam yi di ko faal foofu. foofu temps la du yàq. faal ñeenteelu dump ba ca laafu ndeyjoor wa. faal loolu mbir la di jina de. ñeenteel bi ñeenteel ba ca ndaw yu ndaw yi. ah yu ah yu ndaw yi ñeenteel ba yu ndaw yi temps la. da nga koy def lii da nga koy wàccee. ñeenteelu dump boobu les experts en jurgóot. waaw waa kuy ay waay ah déggal déggal taaba google kaasal bilaay ah, bilaay sa tur yi su ma ko rusuloon xëy naa fajar gi saaga la direct arrête ça arrête waa ça na bagage yi dog na bagage yi dog na bagage yi dog Fatima Silla temps yi moom jooboo ni ngay joobee sax baaxul ayca euh, Kar Diatta Niasse si actu du net aujourd'hui on a quoi waaw tey ci wàllum actualité net en fait dañuy joxe juste les grandes lignes. pour uh-huh. pas bu baax ci li nga xam ne moom mooy journaux yi li ñu xëyee tey. Mm. ak lii moom moo sekk fas yéene ñëw waxtaanee ci kanam tuuti dans sa rubrique découverte avec euh, Mounirou Sy donc euh, marche bi nga xam ne ab Ablaye Wade euh, bëggoon na ko def démb am jot na sax am mais gis ne dispersé nañ leen ak des. grenade lacrymogène je pense que ci revue de presse bi dinañ ci gën a ñëw en profondeur mais également requête bi nga xam ne le président Macky Sall def na ko ci conseil constitutionnel pour ñu mën a voter ak yenn pièces euh, pour ñi nga xam ne jotaguñu retirer seen pièces d'identité biométrique yi mën a voter ak yenn pièces lu ci mel ni passeport permis de conduire ak lu ni mi ngi wéy di ju di jur coow ci sur la toile ñenn ñi sax dañ ko def benn hashtag challenge tu votes avec moo xam ñenn di si ne carte daayira ni mel xaar lu lu ni mel tuuti dinañ ci gën a xuusandi ak suñu invité. am nañ constitutionnaliste. Mhm. ak ñun ci carte yooyu nu war nar a wote lan euh, xam lu gën a leer daal nanu fii ci ce matin c'est à nous ici nous essayons nous essayons de joindre l'utile et l'agréable c'est-à-dire passer du bon temps avec vous. Mhm. en même temps vous informer exactement de la situation parlant d'information les quotidiens d'information du Sénégal se réveillent chaque matin avec des unes et nous les feuilletons chaque matin avec Mamadou Mbaye et Thioro Mbar Ndiaye ce matin. maintenant top c'est parti. jaajëf corombaar ñu tàmbali ko ak le quotidien mel na ne Ablaye Wade moom daal dem bay jub Washington nii di ko gis nii nii nii waaye jot faa yegg corombaar. bu ñu waxee Washington nag mooy bu nga xamante ne. mu ngi fii ci centre ville moom ñu wax ni euh, policiers yi ñoo policiers yi plutôt ñoo euh, bloqué seen cortège foofu la ca Médina mu wax ni je pouvais donner des instructions pour marcher sur la présidence. mi ngi ci biir journal bi waaye tamit nee na ñi lee ils ont mal interprété l'arrêté Ousmane Ngom maanaam li ko taxoon a jóg ak ñoom ni nga ko jëfee du benn euh, nee na amul adversaire Macky Sall poltron la. luy poltron mooy tapet tax ah, yaa wax ko ci kaw samay kàddu Abdoulaye Wade ko wax. ah waaw euh, mi ngoog mi ngi ci biir euh, journal bi bilan bu premier semestre Sonatel réalisé nañ lu toll 483 milliards ci wàllu chiffre d'affaires ok. baax na laas laas corombaar nee na la police bloque maître Wade mi ngook ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo di takk der yi daal ñoom ñoo fexe rek ba kii jàpp Abdoulaye Wade ak ki ñooñam agsi wuñu fii nga xamante ni moom moo di ca place de l'indépendance campagne gi ba tey mu ngi ci biir journal bi ak Mohamed Boun Abdallah Dionne waaye Gadiack Moussa Touré wax wax nañu ci wàllu wàllug mbir yi ñu bëgg kayit yi ñu bëgg mu euh, voté ak yu ni mel. enquete yéen kaay ñoo na ci marche pour la délivrance des cartes d'électeurs la police topp wàdd ñoom dañoo ko tax ba agsiwul file ci Ndakaaru ñu wax ni daal place de l'indépendance démb bastion imprenable la woon. Wade nee na gagné na ba pare li ki des rek mooy Macky Sall nangu ne daanu na. Euh, euh, euh, marche bi avortement de lañ ciy wax ni mi ngoog marche bi ñu ne dafa avorté Wade arrêté par maître Ousmane Wade arrêté par Ousmane Ngom jeu de mots bu réew mi indi pour rek wax ci arrêté Ousmane Ngom bi ñu fi taxawanoon Macky Sall wax ni nag du may Macky Sall dara. Abdoulaye Wade nee na lu métti la nar a teg Macky Sall. waaw waaw waaw Abdoulaye Wade moo ko wax te waxaat na ko fii ci biir 24 heures Thioro Mbar Ndiaye mel na ni marché ba mujj da am loolu wax. ñu ne marché bi dañ ko étouffé Dakar ñu bunkeriser ko oto yi ñu leen di fouillé ay lacrymogènes yu jéggi dayo fu ne mu fay jóge ak ay nit yu ñu teg yoxoo mi ngi ci biir journal bi euh, maître Wade ñu wax ni daal il capitule face aux forces de Macky Sall. ñu wax ni lan moo euh, xew ci li nga xamante ne moom moo di négociation bu droit arrêté Ousmane Ngom ñu ni ñu ko interprété baaxul euh, Macky Abdoulaye Wade mu ne li mu bëgg duñu fal ko naka noonu buggaloo nekkaat président de la république mi ngi ci biir journal bi waaye naka noonu ab communiqué ngir rek daal di justifier décision Khalifa Sall mi ngi ci biir 24 heures. on a gagné loolu la Abdoulaye Wade doon wax Les ñoo ko wax. ci Les Échos Abdoulaye Wade cri victoire moom nee na euh, gagné na te wal na Abdou wal na Macky Sall ba mu euh, mokk nee na Macky Sall ab tàppat la nee na mi ngi teg 50 millions ci table bi bu fekkee ne Macky Sall nangu. nangu naa débattre ak moom nee na 91 ans la am ñeent fukki at ak benn moom fier na ci de nee na ñi nga xamante ni euh, ñoom ñoo am atam yëpp moom du seen moroom ci euh, dara Euh, nee na bu ñu bëggee euh, Karim Wade ñëw fii dina ñëw mu ngi ci biir journal bi ñu jàll ci l'évidence l'évidence ñëw na ci Rombar Ndiaye ci moom maître Abdoulaye Wade ak marcham boobee mi ngi wax mu mel ni daal moom police moo ko tere ak si file ci euh, place de l'indépendance mu daal di duut nag baaraamu tuuma kii di Macky Sall Gaston Mbengue kàddoom ci journal bi nee na Barthélémy Dias dañ koo war a arrêté pour offense au chef de l'État Maître El Hadji Diouf nee na Macky Sall nekkatul nekkatul xaritam ndax buur la libération nee na Ablaye Wade moom miy wax mars pour jëlee carte carte d'identité yeeg carte électeurs yi moom ci boppam jëlagul ba sax. nee na Abdoulaye Wade retiré gul carte am à cinq jours du scrutin euh, mu ngi ci libération yéenekaay nee na euh, carte bi disponible na depuis ay euh, fan ci commission waaye demagul jëli ko. ñu ne naka lañ defee naka la ancien chef de l'état bi euh, yëfam yi ñàkk a doxee ni ki euh, démb ak appel bi nga xamante ni euh, kenn topp ko mu ngi ci biir journal bi lu jëm ci wàllu paiement par anticipation yu salaire ak pension yi Macky Sall mel na ni tàmbali na ko de mi ngi ci biir journal bi drame fële ca Italie ab sénégalais la ñu fekk mu ñàkk bakkanam mi ngi ci journal bi. Colombaar ñu jàll ci l'observateur moom defal nañu njàngat bu am solo ci quartier yeeg ni ñu koy distribuer. mu ngoog mu wax ni daal ay chiffres yu officiels la waa direction générale des élections daal di euh, joxe wax nañ ni lu. 6 euh, millions ak lu teg ci ay nit ñoom ñoo inscrire 5 millions yu teg jot nañu seen ay euh, Euh, seen ay carte génne na 3 millions ak lu teg seen ay carte retiré nañu ko mu mel ni 70 pour cent ak lu teg ci population bi jot nañ seen ay carte Kédougou ñoom ñu ngi ci 84 euh, pour cent yu teg Kaffrine ñu ngi ci 82 yu teg Fatick ñu ngi ci 80 yu teg Matam ñu ngi ci 70 yu teg Dakar ñu ngi ci 51 yu teg ñu wax ni commission yi passé nañu euh, ci 560 jàpp 1364 702 vacataires euh, euh, trois 300 yi ñu ngi file ci Ndakaaru noonu la waa DG xëyatee te observateur euh, président bi la waat ginnaaw marcham bi nee na fi mu toll nii nekkaguñu ci état de guerre nee na ñu lu wax nañu tamit lu tollook fanweeri nit ñu trentaine de personnes teg nañ leen loxo. Dakar Times ci loolee la wax Coro Mbaar Ndiaye mu ne état des lieux de la production et du retrait de cartes d'identité. lu tollook du juróom benn junni yu teg ñaar ñaari téeméer ci ay carte la ñu produire waaye nag lu toll lu ëpp genn wàll gi daanaka euh, joxe nañu ko mu di ñetti euh, junni ak juróomi téeméer ci ay carte joxe nañu ko moom la Dakar Times xëy tey. xaw ma fan waaye fële ca bët saalumu réew ma de benn benn la ne assuré na fa lii di victoire ci loolu da la ñu wax ne nga foofu la cay ñoom bateau ñoom daal mu mel ni am nañu xel bu dal ni ñoom ñoo koy gagné Ousmane Tanor Dieng nee na xelam dal na ci metre El Hadj fële ca Louga. Euh, nee na euh, li moom euh, peuple sénégalais comprendre nañu ko bu baax a baax man ko wattu Sénégal dañ leen ne du ngeen foofu foofule ca place de l'indépendance président Abdoulaye Wade nag mi ngi sàkku ci premier ministre di Abdoulaye Daouda Diallo mu tekki nombre tànkam Ousmane foofu foofule ca Diourbel nee na lii di APE danger la ci secteur bu commerce bi mi ngi ci le soleil. Vox Populi nag mbiri violence la xëyee corombaar ci campagne électorale yi. ñu wax ni ay coups de feu ak i blessé ci fiefu Macky Wula Ndiaye moom daal di euh, wax ni moom daal tiré na ci militant yu APR yi nga xamante ni ñoom ñoo ànd ak Thérèse Faye Diouf ñu wax fële ca Géejawaay ay jàppante ci diggante ñi farak Aliou Sall ak ñi farak Malick Gakou fukki nitam ci gaañu gaañu ñu wax ni daal vote ci wàllu récépissé ak inscription mi ngi ci biir journal bi le grand bluff de Wade la ñu dippee marche président Abdoulaye Wade bi waaye tamit moom wax na ni euh, président Abdoulaye Wade ab euh, président président Abdoulaye Wade nee na Macky Sall ab président bu tàppat la ñemewul sax ay way waajuram mi ngi ci biir journal bi Pape Kory fay bokk ci beneen baat bu bees nee na kenn du jënd seen dignité législative yi tamit foofule ca euh, Touba ñu wax ni ab euh, polémique la ñu wax ni moo fa juddu ci ab ndigal bu ñu wax ni kii di xalif bi joxe na ko mi ngi ci journal bi ne dañuy jàll ci Sud Quotidien saison du conseil constitutionnel la wax corombaar ñu ne Macky fu mu ne nii ci ab impasse maanaam xamatul fu muy jaar fu mu war jaar fi mu ne nii moo lëndëm ci moom professeur Abdoulaye Dieye ak ñu ñu àndal dinañu saytu requête bi ñu ngi leen di déglu ba euh, xam président Abdoulaye Wade raté na marcham bi de Sud Quotidien moo ko wax. Coro ñu wax ci mbiri tàggat yaram tàmbale ko ak stade yeneen kaay mu mel ni dañoo wax repositionnement en attaquant. ak Sial kooku moom mooy kan ki nga xamante ne moom Mame Birame Diouf moom fi mu toll ginnaaw ba seet nañ poste bi mu doon nga xamante moom mooy poste attaquant central waaye fi mu toll ni ñu ngi koy bëgg a delloo foofu nga xamante ne ni moom mooy ci place am ñu ne la défenseur du monde Mendy trajectoire d'un jeune loup de Monaco à City mbokk loolu mu ci biir yëglekaay bi waaye yëg ngeen ne équipe nationale bu Sénégal fi mu toll weer ko dese pour mu jokk jonganteeg Burkina Faso waaye seen premier adversaire xam nga lan la coro oh. pelouse bu seen pelouse bu stade bi mooy seen premier adversaire pelouse bi ak dara baaxu ci ak lamp yi ñu ñëw ci suñu làmb ñu wax ci Aziz Ndiaye mi nga xamante ne moom la ñu fësal ci xët wu njëkk wi ñuy wax Aziz confirme Birahim Ndiaye ñu ne mu ne les états généraux de la seen s'imposent kooku kàddu yoo la yoo xamante ne Aziz moom moo ko wax mu ne le CNG doit assainir en commençant par les ñu ne cachet plus de 60 millions ay Yekini cinquante à Lac 2 ñu ne Yekini pouvait sauver la lutte loolu ay kàddu la yoo xamante ne Aziz moo ko yëkkati mbokk yi mi ngi ci biir yëglekaay bi di sunu làmb Tafatine moom ginnaaw ba ñu ngi wax ci digganteem ak tafaa ci digganteem ak Sa Thiès nee na moom du VIP waaye tamit nag nekkul moromu. xale yi nga xamante ni ñu ngi ci yoon wii ñoom moom Aziz Ndiaye ci biir yëglekaay bi ba tey yëkkati nay kàddu jagleel ko ki nga xamante moom mooy Assane Ndiaye ak Pape Abdou Fall mi ngi ci biir yëglekaay bi waaye ñoom ñooñee ña ngay encaissé jag si promoteur la bu nekk ci làmb ji waaye dafa am liggéeyam liggéeyam lan la architecte la moom nee na mën na réparer mur yi stade Demba Diop bi ci 2 millions 500. waaw kooku moom architecte am bi duñ xoolaat diplôme bi fu mu ko jëlee. 1963 ba léegi 2 millions la koy réparé moom. waaj 2 millions 500 teg na ci 500 yéen kii kan la yëpp. teg na ci de Jax de teg na ci 500. xam naa bagage yee moo bañ a engagé stade ah. ko lijjanti dafa jafe. Ah, ku ko defar da dañu waaye 2 millions 500 moom soyam sérieux. ko dee mën na ko defar ci loolu nañ ko bàyyi mu defar ko ci loolu. Eh, eh, eh. expérience expériation bi. yaa mi fu mu dëkk yow. yow tey dañ laa makkee ba defal la bouton damul noonu. yëgul bouton d'amour bi bu ko ko def kawe na bëggoon wàcc. je réponds pas à merci beaucoup ci li ngeen ñu xëy euh, nafaral ñu ci këru yéenekaay yi jaa ngeen jëf yéen ñaar xaar ma te kon ni balaa ngeen koy waat ci digg waxtaan wi. dafa am loo xam ne dañ ko seetlu fii ci Sénégal. muy muy bu tabaski jegesee ak bu tabaski jegesi wut sax saa yoo bëggee jënd paaka xam nga foo koy fekk. Ah. am na ay pistolet yu tiitalaate boo rombee rond point 26. da nga koy jënd ah. en général briquet lay doon. am na ñuy jaay affaire yooyu nga xam ne day maas ni nii da koy téye rek mu def tër. waaw c'est dans ça comme ça comme di euh, comme des journaux. comme ça ci mbedd bi nga koy gis ñu koy jaay. Mhm. loolu la defe naa ci la nabu war a ñëw wax. Mhm. lépp loo xam ne mën naa xoxotal doomu aadama mbaa mu jël bakkanam. Euh, te du arme à moom la ñuy wax arme blanche su ma jum. arme blanche ak arme à ah, ñaar yëpp dafa yomb ñaar yu bokkul la te arme à feu arme feu jafe woon na mais bu ñu xoolee ci ni nga xamante ne euh, noonu lañ koy jaayee léegi euh, bon nekk na lu nga xamante ne peut-être ku ko bëgg am ak fi nga ko mën a lijjantee di nga ko am te doo ci am benn jafe-jafe maq doom ngay wax mooy yi nga xam ne day am bal plomb yi eh, maq ci boppam laa lay wax pistolet vrai mhm. waxuma li ngay wax naan day day nekk briquet wala wala lampe torche mais Barthélemy di ko gis xanaa war a xam fi pistolet yi am dinañ dinañu ñëw ci loolu sax ndax homme politique yi bëri na ñu nga xamante ne ñoom ñu ngeeg seen euh, seen i seen arme à feu denc ko foofu sax la ñuy la ñuy njëkkee euh, Pape Sidi ndax mhm. euh, li nga xamante ne euh, moom moo jëm ci arme à feu yooyu le dafa am loi bu nga xamante ne dañ ko fi tëraloon ci atum 1966 mhm. loi bu nga xam ne peut-être tey jii elle est vieille de d'une cinquantaine d'années ou plus mhm. moom la ñu tëraloon nag daal di aaye lépp lu nga xamante ne moom moo jëm ci arme à maanaam importation bi exportation bi waaye tamit commerce bi ak transport beeg port bi loolu yëpp itam am na arme norme euh, bu ko doon euh, bu am na loi plutôt bu ko doon tere muy loi 66 euh, 03 bu boobu boobule loi nag ñu ngi ko adopté woon ci atum 1966 comme ni ma ko waxee ngir nag tere yooyu yëpp waaye bu ñu xoolee ci circonstances yi nga xamante ne ci lañ ko taxawaloon Euh, mën nañu wax ni euh, loi bi elle est vraiment euh, ancienne par rapport ak ci ni nga xamante ne noonu la jamono évolué. Mhm. xam nga dëkk buy dox dañu war a xool changement yi nga xamante ne war nañ ko mën a apporter ci ay mbir yu bëri ñu mën ko ci indi ngir nag nekkin bi waaye tamit bu ñu xoolee loi boobule ak jamono ji ñu toll mën nañu changer un peu. Mm-hmm. mën nañu changer un peu li nga xamante ne moom moo di euh, euh, loi bi ngir nag mu mën a euh, adop adapté wu ci li nga xamante ne moom mooy nekkinu Sénégal jamono ji waaye tamit mun a conformer wu ci li nga xamante ne moom mooy engagement communautaire bu bu Sénégal jëloon leneen lu ñu mën a wax itam ci mbirum arme yooyu la yaa ngi koy wax sànq muy naka la ñu mën a def ba am ko sous région bi bu ñu xoolee dëkk yi nga xamante ne ñoo wër bu ñu nee sous région mooy dëkk yi nekk ci Afrique te mm-hmm. te wër ñu mm-hmm. euh, yooyu dëkk ñu ci ci bëri bu ñu soxlaa arme ci dëkk yooyu lee lay jóge ngir mën a ñëw euh, fii ci Sénégal am na ah. sax yenn ci ay euh, dëkk wala yenn ci ay koñ yu nekk fii ci Sénégal bugguma lim pour bañ a indi mm-hmm. li nga xamante ne moom kii mais leer na ni ku dem ci yooyu le gox wala yooyu lee marché di nga fa mën a am arme yooyu le te bu ñu xoolee Euh, ñi nga xamante ne peut-être euh, ci ci jàngat bi ñu def ñiy yore arme yëpp euh, Modou mbay mm. ñu ci bëri pour sécurité la ñuy avancer question sécuritaire mm. mooy la première chose bu nga xamante ne nit kiy yore armam moom lay njëkk avancé pour wax ni moo tax mu wut autorisation bi dinañ ñëw ci autorisation bi ci kanam. Mm. Euh, ñaareelu mbir bi ñu ci bëri bokk jàpp nañu ni li tax euh, nit yi di faral di wut arm te boo xoolee jigéen ñi ko am bariwul góor yi ñoo ëpp liñ ko am te du tic au tac ñu déggee ne taxaw. Mm. maanaam seen euh, wane ni ay góor lañu wane ni ñoom ay jàmbaar lañu wane seen seen seen ngóor fu mu toll peut-être dina yóbbu nit ci bu yoree arme bu coow li xawee bëri mu génne ko taxaw pour peut-être glorifier wu ni. arme la yor euh, crime yu bëri itam euh, mën nañu wax ni euh, plus de 60 pour cent ci ay crime yi nga xamante ne ni que jamono ji mu ngi am fii ci Sénégal ci arme blanche lañ koy lañ koy gisee comme li nga noo wax sànq. Mm-hmm. muy mbirum paaka yi ak yu ni mel. muy paaka ak jaas bu ma la nee tey jii arme blanche sa xel ci ci ci lan lay dem yéen ñëpp sax. paaka jaas yi waaw. ay coupe coupe. ay maanaam lépp lu nga lépp lu nga xamante ne ni que arme la euh, bu mën a euh, gaañ nit wala mu faagaagal ko voilà exactement waaw clé arme clé kii clé clé kii clé yaa clé yooyu clé loo xam ne mën na gaañ nit lépp lu nga xamante ne eh, yow yooyu yëpp sa yoon neex si rubrique kii mais kaw la dafa bëri boo yu fa dee si ah. jakarta yi si ay xeex fekk jakarta maan bi day dégg ne clé à bougie mhm. c'est-à-dire à la base clé la pour ubbi bougie mhm. mais si bout bi dafa pointu mhm. donc dañ koy dégg dégg ne am na benn gel bu ñu fa reyoon sax euh, ngaan gaan bi daf ko jam clé à ci baat bi ba mu dee voilà loolu yëpp nag moom la ñuy tuddee euh, arme blanche loolu yëpp dafay dugg ci ci kéwu arme blanche mais Pape Sidi li graaw ci arme blanche bi euh, mooy ni arme blanche yooyu le amul benn loi buy interdire vente bi maanaam vente bi Sénégal amul loi buy buy interdire la vente euh, bu arme blanche ah yooyu le amul amul benn loi buy interdire vente vente bi c'est c'est vraiment euh, libre moo tax ngay gis ci boutique 100 francs boo ko yoree mën nga dem ci boutique ba jënd mm-hmm. li nga xam ne moom mooy paaka mm-hmm. euh, ci 100 francs yooyu le mën nga am paaka te paaka ku ko xam-xam ni vraiment mën na mën na faagaagal nit moo tax loo ci gis ci crime yu mujj yi yëpp ay paaka ngay gis diw jam na nit ndax 100 francs la ko laaj joxu ko ko mm-hmm. diw jam na nit ndax kaasu café Touba diw jam na nit jam yooyu dafa dem ba répété wu parce que amu benn loi buy légiférer vente euh, arme blanche yooyu le te pourtant euh, njaayum wala yore pistolet buñ ci buñ ci ñëwaatee ñëpp xam nañ ni dafa soxla soxla autorisation. manque de loi boobu c'est dû à euh, à faute. mooy li ma wax sànq mhm. mooy wax naa sànq ni loi euh, bi nga xamante ne moom mooy loi 66 03 euh, bu 1966 dañ ko war a adapté waat ak circonstances yi nga xamante ne mhm. ci la ñu nekk léegi. donc xëy na loolu moo tax. peut-être ñiy laaj baatu askan bi di nekk député parlant des politiciens. Mhm. dama seetlu ne ñoom dañu xam. ne bu ñuy dem si askan bi léeg-léeg nga gis benn parti bu dajeek benn parti bokkul ak Sonko Tunkara wala PVD ak PUR. Mhm. mais da ngay gis ñoom dañuy am ay nit ñu ñu jël. on les appelle des gens pour la sécurité de leur. Euh, des nervis des nervis. on les appelle ñun on sait sur le terrain que c'est des nervis. Mhm. dañuy utiliser paaka et ils ne ils n'ont pas peur de les dégainer pour faire peur à l'autre uh-huh. wala pour faire un crime uh-huh. et puis ñooñu ñooy laaj suñu baat yi pour nekk député à l'Assemblée nationale est-ce que ñooñu mën nañu yaakaar ci ñoom pour ñu voter et pourtant dañuy dañuy dañuy faral di wax sax ni bu élection jubsee wala li nga xamante ne moom mooy tabaski ak euh, yu ni mel nga xam ne dañuy soxla euh, dañuy faral di gis ni nit yi dañuy soxla lu bëri ay paak ak yooyu rawatina ci élection yi nga xam ne fu ñu jëm ñoom ñooñu ngay woowee les gros bras dañuy faral di utiliser pistolet wala kii pourtant am na euh, fu fu ñu fu ñu ne Euh, ki nga xamante ne moom mooy préfet wala ministre de l'intérieur war na génnewaat li nga xamante ne moom moo di loi bi nga xamante ne moom mooy interdire yooyu yëpp. Mhm. mais est-ce ñu ngi koy def. préfet moom dëgg yàlla préfet ñu ngi koy ngi koy remercier ci liggéeyam mais préfet man ci marché laa koy dégg bu stade yi amee problème ñu ne tëj préfet nee na tëj na stade man xaw ma préfet sax. xàmmeewuma préfet bu bu préfet nii bu moromoon du ma ne la kii ay préfet. kan mooy dama koo xam. xaw ma gouverneur bu Dakar te ñooñu ñëpp ay nit lañ yoo xam dañu war di génn ci société bi ñu leen di xàmmee ci ay yenn circonstances la ñuy génn. Uh-huh. te ci circonstances yi ñuy génnee yu metti la. Uh-huh. affaire arme blanche bi góor boo gis ci àddina muy xeex du yor arme tàppet la. Uh-huh. boo amoon fit du yor arme boobu parce que. gëmul li nga xamante ne moo nekk jigéen ñi dañuy yor arme blanche lañ set di ñaasante. loolu arme la ci ñoom parce que ñoom dañu néew doole bu dee seen diggante ñoom entre jigéen ak jigéen mën naa ne mënu ca mën na ci ñaax. Mhm. ma jigéen ak góor loolu kooku ku néew doole la bëgg a défendre. Mhm. comprendre nga. mais góor yi ngay gis ni ñuy dox ci mbedd mi du yor arme yëpp bu dul loon arme boobu tey jii du ñu am sañ-sañu def li nga xamante moom la ñu. ñu jam la mu bonde ñu daal ci caba xawal caba xawal pour l'instant. te gën a graaw mooy lu nga xamante ne peut-être nit yi euh, du dañ ci dañ daan nañ ci wax. Mhm. surtout ci période bi nga xamante ne euh, taximaan boobu lee faatoon nañ côté ki ko faatoon euh, dégg ne génne arme daal di koy. daal di koy jam mhm. bu ñu xoolee ci li nga xamante ne moom mooy autorisation wu port d'arme maanaam mhm. arme à feu lépp lu nga xamante ne dañ la koy laaj muy lu lu jëm ci euh, procédure bu gudd la nag. Mm-hmm. mais mën nañ ne dafa simple. ndax di nga dem déposer fële ci ministère de l' intérieur yenn ci ay papier keneen mais bu ñu xoolee procédure bi yëpp yëpp yëpp yëpp Pape Sidi amul fenn fu ñuy xoolee aspect psychologique bu mm-hmm. nit ki. Mm-hmm. te loolu yaakaar naa ne lu ñu war a bàyyi xel ndax sama genre gu tàngu xol gi nga nga déposer papier yëpp rek doo xool beneen aspect bi nga xamante ne moo nekk ci biir doo xool euh, li nga xamante ne moom mooy ki bi même bu fekkee dinañ def yenn enquête de personnalité mais aspect psychologique u nit ki ñoom duñ ko xool maanaam duñ xool ndax ki am na ànd na ak sagoom exactement y a a des mhm. choses yu nga xamante ne duñ ko tenir en compte euh, ci ci ci ci ñu am loolu mhm. bokk ci même bu mhm. fekkee dinañ def enquête de personnalité te je crois que ni loolu lu am importance la euh, ci nit parce que nit yëpp yemuñu yow mën nga am sang-froid man ma bañ ko am keneen ak keneen ak keneen noonu ñun ñëpp ñu ngi ni toog mhm. mais ku ci nekk ak sa jikko yi nga xamante ne moo ne ci yow dégg naa ñoo xam ne euh, dañuy dóor bal nit ki ba pare door a def ñaari tiir ci kaw sommation comme ça nit ñëpp dégg trois teel teel ci xam nga te dama la bëggoon doole rek euh, aux États-Unis moom mooy réew mi ëpp port d'arme permis de port d'arme mhm. te mooy réew mi ëpp euh, meurtre lié aux armes à feu donc c'est c'est quelque part est-ce qu'on ne est-ce qu'on ne tire pas parce que ñiy agressé di braqué banque yi léegi dafa xew Sénégal ah ñiy dem di def addu calpé ñiy agressé yooyu même moyen la ñu utiliser comme disait l'autre science sans conscience des que ruine de l'âme quand la personne a pensé à faire ça c'était pas pour euh, faire autant de crimes mais aujourd'hui on assiste hélas à cette situation. Est-ce que euh, la loi du Sénégal peut venir vraiment euh, face à cette situation revenir face à cette situation pour xool naka la ci wàññi ay do kii la ñuy espérer mais bu ñu xoolee yaa ngi wax ni États-Unis euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoom fa autorisation port d'arme mais fii ci Sénégal euh, je te dis qu'en 2016 lu ëpp 1000 autorisations daal dinañ koy délivrer te 1000 yëpp 250 kese moo ci am rejet. donc tu vois que ni ñu koy joxee mi ngi mi ngi ngi bëgg a bëri. donc joxe nañ 750 autorisations autorisation tamit ci ci ministère de l'intérieur la la dépendre donc mille noonu bu ñu ko bu teg ko euh, kese ci atum moom rek moo ci am rejet ci 1000 donc boo waxee États-Unis donc Sénégal en euh, ci ni ñu toll ci population peut-être euh, bu ñu demee ba autorisation de port d'armes di bëree noonu yaakaar naa ni je <laughs> autorisation may na nit à tout moment nga war a parce que on a l'impression que ñi am autorisation port d'arme dafa mel ni dañ leen a jox benn benn pouvoir voilà euh, par rapport ak ñi nga xamante ne euh, amuñu autorisation bi wala amuñu sax arme à la euh, ci ci ci loolu nag mooy li may wax rek affaire de ngóora bi ñuy jaay affaire de te boo gisee ñu ci bari ci ci ñooñu mooy ñi nga xam ne dañu wekk seen bopp fenn ñu ci bëri ci ñi nga xamante ne bu coow li bëree ñu génne arme teg mooy politiciens yi te ci yor nañ ci liste bu nga xamante ne mën nañu wax wala doomu ñenn yenn exactement mooy ñi nga xam ne dañu wékk seen bopp fenn ñoo ñu ngay faral di gis ñuy yore arme euh, bu coow li naree tàng sama diggante ak coro ma génne suba dara duma ci fekk donc hmm. euh, voilà quoi c'est des choses à éviter parce que nekk na lu nga xamante ne tey ji bu amin bi yombee rek Euh, pour nu nu ñu koy jëfandikoo on peut pas contrôler kenn du ko ah, contrôler est ce que hmm. est ce que nekkul en fait y a un problème qui vient avant mooy insécurité bi c'est-à-dire dañoo nekk ci benn pays boo xam ne Sénégal léegi comme ni ñu ko waxee da ngay génn ci mbedd bi agression bi mi ngi fii tu tu tu sors dans la rue tu n'es même plus en sécurité ah maintenant nit ñi gis ni peut être euh, pour assurer leur sécurité puisque ñi ñu fi teg pour ñu assurer seen sécurité ils ne parviennent pas à faire le boulot à 100 pour cent hmm. donc boo xamee ne peut être yow ta vie est en danger quand tu sors dans la rue tu te dis que peut être suma gànnaay naa yow dara dinaa mën a am loo xam ne ku ñëw bëgg bëgg maa man ma fànk la à l'avance rek loolu moo nekk problème de fond parce que quand tu sors et que tu n'es pas en sécurité je vais avoir euh, pour jigéen ñi lamset comme ni ngeen ko waxee mais je pense que loolu c'est en fait c'est vraiment vraiment pas le cas du lu ñuy faral di gis de de de plus en plus mais góor ñi mm-hmm. paaka yi ñuy gànnaayoo ak armes à feu yi ñuy gànnaayoo c'est pour plus assurer leur sécurité est-ce que du loolu parce que nguur gi ñu fi teg ils arrivent pas assurer la sécurité de la population moo waral population bi daal di ut blanche mooy li ma wax euh, Khadija ci début bi sécurité mooy aspect bu njëkk bi nit yi di faral di wax di di di évoquer pour tudd ni looloo waral ñu ñuy joree li nga xamante ne moom moo di arme mais fenn rek laay laay leeral aussi li nga xamante ne moom mooy arme yi xam nga exemple mën nga am autorisation port euh, port d'arme mhm. mais ci arme blanche loolu amu ci mhm. mais nag te amu ci ça veut pas dire que ni fu la neex nga gàddu sa paaka fu la neex nga gàddu sa li nga xamante ne mën nga ko jamee nit mhm. non loolu c'est interdit lu ci mel ni ay paaka ay euh, clé xaw ma ni ngeen ko doon waxee sànq lu ci nekk ak fa nga ko war a jëfandikoo bu fa génnulee yoon du la fekk ci sa biir kër ne la looy doyee paaka comme ni ñu mën a fouiller sa kër fekk fa pistolet laaj la autorisation loolu fekku la ci ci paaka wala yenn ci ay outils parce que bu ci nekk warul génn fi nga xamante ne ni que foofu nga ko war a jëfandikoo mm-hmm. bu ko dépassé nag nga koy doxantoo ci mbedd bi buñ la appréhender foofu moom yaa mm-hmm. waaw man moom loolu lu ma ci doon wax mooy sécurité aspect sécuritaire bi ñuy wax mm-hmm. bu réew amee sécurité nit ña ca réew ma duñ soxla arme pour aar seen bopp loolu nañ ko xoolaat parce que réew mi bu dee am na sécurité rek corombaar soxlawul pisole pour tey jii naan damay xalaat euh, euh, agresseur bi wala damay xalaat ñu kot ma feneen ak feneen kon loolu dañ ci interpeller ñi nga xam ñoo yor suñu kaaraange à chaque fois ñi ngi toog ñoom ci télé bi di wax ne am nañ kaaraange am nañ kaaraange certes am nañ kaaraange mais kaaraange gi moo doyut lu tax kaaraange gi doyut ñoom ñooñu fi ñu toll ñoom ñu ñuy yëlif mhm. ñoom ñoo toll ci seen période mhm. te seen période ëpp violence mhm. kon ñoom ñoonu war a aar ñoom ñu war a aar nañ xoolaat seen doxalin am loo xam bu ko gisee ci réew ay mag di ko doxee bu xale yi wëlbati ko doxee noonu bu ko mag na bañ. Mhm. Mhm. waaw def naa man réew mi am na sécurité mais dafa am ñuy woy ay samba boy. te léeg-léeg nga dajeek ñoom. mooy ñax sécurité. mais ñooñu par exemple. ñooñu ñooñu ñooñu li ñuy jëfandikoo ci ay armes Modou Mbaye vraiment li kii doon wax sànq ni ñuy braqué. ba cëkk nga dugg. nangu naa euh, braqué ay ay banques et cetera. te ñooñu sax seen insécurité bi ñuy wax euh, bu sénégalais lambda di jànkuwante ñoom en fait c' est plus une bataille rangée entre politiciens moo waral. ñu def mais Gambie am na sécurité di ko gëm. waaw. Gambie da ngay dox. ba 4 heures du matin yow tuum yaa gis jigéen buy dox moom kese. kenn du la laal ñoom nee nañ xamuñu lan mooy agression. parce que Yaya Jammeh dafa wax ne ku ñu jàpp ngay agressé. duma la yóbbu prison dama lay rey. mais ñoo ñoo am sécurité. mais parce que nit ñi xam nañu ne Yaya Jammeh il badinait pas mais ici il y a trop de ouais pas de laisser aller mais il y a des règles qui ont été euh, <laughs> fii la leeree sax ñu nax sa règle yooyu euh, ma peut-être falaay falaay jeexale mhm. euh, ngir rek lancer appel ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu ay autorité mhm. ndax ci changement wu loi yooyu ci atum 2014 le 30 septembre plus précisément mhm. daal dinañu woon déposer avant li nga xamante ne moom mooy avant projet de loi déposé woon nañ ko ngir xool naka la ñuy changer voté bu njëkk bi mooy ma énuméré woon muy loi 6603 bu 1966 ngir euh, changé waat comme ni waxee mm-hmm. gën a yeesal loi bi ngir mm-hmm. nag mu mën a interdire euh, vente euh, yu ni mel vraiment mm-hmm. ci kii bi ci territoire national bi te ba léegi projet avant projet boobu ñu déposé ba tey amul suite 2014 ba tey donc ñuy espérer rek ni que autorités yi ñu ngi ñuy dégg et que ñu violence yi nga xamante vraiment mu ngi koy gis ci ci Sénégal rawatina ci jamono ji ñu nekk ñu ko Modou may waxee ci période de euh, campagne électorale ndax euh, armes yi bëri na euh, nu leen neex la ko nit yi di di utiliser ñuy espérer rek ni que loi boobu la dinañ ci apporter ay changement ngir rek mu gën a adapté wu ci li nga xamante ne moom mooy circonstance te léegi lu waaye di def na ko xool ndax fu nekk la nit di yor te téléphone yi ñu yor ñu tuddee ko smartphone c'est des téléphone très rapides même verrouillés uh-huh. da nga naan taf rek bouton rek commencer donc les gens filment maintenant avec des visages et tout la xewoon Grand Yoff laa gis waa APR dugal ci benn vidéo di di expliquer comment ça s'est passé le drame et c'est vraiment dommage malheureusement euh, dans ce qu'on est en train d'assister Sénégal xamuñu loolu dafa am loo xam ne bu fi ñëwee rek bettuñu mhm. mën ñu gañeñu ndax miinu ñu ko xamuñu loolu ñun bu ñu gisaan pistolet ba gis ko mëq doom la télé lañ koy gisee théâtre kat yee ko doon yor waa waa Sorano ñu ngi leen nuyu bu baax ay ca Nabou maa ngi lay sant bu baax di la gërëm ci leeral yu nga ñu indil tey ci port d'arme blanche ak arme à feu yi leeral boobu am na solo kenn du yow njaay ndakate ndaay njaay daal bëri na façon dafa am njaay boo xam ne waaw njaay daa am njaay boo xam ne njaay jaata ah, ah mais coxali pour man na ngaa laal coxali. non laal ma coxali coxali c'est ah. misaal mi. Ah. ku koy laal. ayca <laughs> très rapidement je rejoins mon ami Balde Ibrahima pour sa rubrique dose d'éducation chaque mercredi saa yu ñu daan wax fan yii nag ci wàllu éducation xol yi da daan tàng dënn yi jug parce qu'on était vraiment énervé sur ce qui s'est passé au Sénégal mais aujourd'hui on est très fier de ce que tu nous apportes ah je te laisse dérouler. dañuy dem Daara Jolof. Mhm. di lay laaj est-ce que xam nga Daara Jolof fu mu nekk. Daara Jolof xam naa ko fan la. Borom be Louga mel na ku jëm Matam Matam. mel ni ku jëm maam miin Sénégal daal Daara Jolof mu ngi bokk ci Louga département de de Linguère. dëgg donc mu ngi bokk ci circonscription académique bu Louga. Mm. ak IEF bu bu Linguère. Mm. donc dafa am benn euh, école. Mm. maanaam benn établissement bu tudd cm ex cm di nouveau lycée ba nga xamante ne moo fa nekk ñu am ay résultats yu. yu yu ràññeeklu ci wàllu bac bi donc euh, malgré fuite yi maanaam am na ay xale yu jigéen yoo xamante ne vraiment def nañ ci jéeg résultat yu rafet rafet donc euh, dañuy déglu benn élément <laughs> mm. euh, waaw ñu ñëwaat ci plateau bi ñu ñu waxtaan si ay ñu daw te ñëwaat je m'appelle Salamata Ba je viens de Daara Jolof c'est là-bas où j'ai fait euh, l'école primaire et aussi le secondaire je viens de, de décrocher mon diplôme de baccalauréat avec la mention très bien j'ai 17 ans l'examen bi c'était un peu pas trop difficile mais on a fait avec surtout avec les fuites et autres mënoon nañu déstabiliser mais on s'est accroché te aussi kontaan nañ bu baax ci résultat yi parce que avec résultat yi bon je sais que les efforts que j'ai fournis n'ont pas été vains conditions yi bon c'était pas aussi bien que comme ñu nekk fii ay genre école maria Ba wala Prytanée mais foofu condition yi xawoon na metti transport bi ak distance amoon entre école bi ak kër ga mais bon ça va école yi amuñ yenn moyens yi foofu dañuy def juste avec les moyens du bord surtout avec yenn matériel yi et tout te aussi à la maison oui on travaille mais man moom am naa chance que à la maison samay parents dinañ ma compense dinañ ma bàyyi ma jàng man ma réewu naa ci vacances daaw yi mais sama mariage nekkul aucunement en franc ci sama jàng mais on voit souvent que foofu moom loolu mooy seen problème parce que ñoom les filles elles se marient trop vite dès 12 ans peut-être ñu maye leen te loolu aussi war nañ ci sensibiliser yi parents yi parce que mun na leen mën na tax ñu teel a abandonner seen études yi te or études yi moom c'est très important. je compte lancer un message donc aux personnes qui vivent surtout dans les zones rurales. parce que foofu on voit que éducation bi demeewul noonu déjà les parents hésitent pour inscrire leurs enfants dans les écoles puisque foofu ils disent que les filles doivent s'occuper des, tâches ménagères et les garçons du troupeau donc vraiment waroon nañu sensibiliser ñooñu noonu pour wax leen que ni la scolarisation des filles c'est bel et bien possible te tamit les enfants ont le droit à l'instruction donc pour le bien de tout le monde ayca kii moo am mention très bien si bac s mhm. waaye mu balde xale bi macha allah. macha allah yàlla bu ko suñu cap mais ay na est-ce que dugalul dara ci bopp bi bi mu mu sóoru. Euh, en tout cas ay technique bi ñu woowee ñi nga xamante ne ñu nekk encadreur généralement vraiment ils ont ils ont ils donné des appréciations positives maanaam rafetlu nañ xale bi ci jàng bi muy jàng. te S bac S2 la am wante tamit ci matière littéraire aussi tamit euh, daf ci am benn xarañte. donc prof français bi démb woo naa ko. ñu waxtaan si lu yàgg vraiment euh, muy rafetlu xale yi jàng bi muy def ak résultat yi nga xamante ne am na wante tamit foofee sa sa daara Jolof aussi tamit nekkul Salemata Ba mii rek moo am mention très bien. ah am na tamit beneen xale bu jigéen bu nekk ca ca lycée ba bu tudd màgget Ndiaye. moo mag nag Salimata Ba mii ñoo bokk classe. moom tamit euh, am na mention bi mi woo mi ngi woo Salimata. Euh, moom noonu donc Maguette Ndiaye tamit benn xale bu jigéen bu fa nekk la bu am tamit euh, mention très bien. amul quoi. am na benn góor nag bu am mention bien bu tudd Samba jàllo am na tamit yeneen ñaari xale yu jigéen yu nekk sa am na nag ñaari xale yu jigéen yu nekk tamit sa lycée ba am tamit mention bien muy ku tudd Ouley jàll Ouley Ndiaye ak Fama Thian. donc ñoom euh, doon nañ ñeent xale yu jigéen yoo xamante ne vraiment am nañu résultat yu baax ca foofee ca Daara Jolof muy muy lycée boobu noonu. waaw eh, moom dégg naa ko ci fin wu élément bi muy wax waxu jëkkër. waaw dafa am boroom kër nag depuis daaw. léegi euh, kon loolu firndeel na ni jigéen mun naa am jëkkër continuer di jàng. te du ko ah, yàqal dara. Ah, mais c'est pas trop évident ñoom ci côté yi ñu dëkk. Mm-hmm. parce que souvent ñoom foofu. jigéen ñi ñoom naturellement jàpp nañ ni parent yi pour ñoom jigéen fa war a toog ci kër gi góor ñi la ñuy bàyyi ñu jàng te dañ leen di wax ni que dañu war a également góorgóorlu ci sàmm gi parce que ñoom loolu mooy seen pratiquement actrice moom moom mooy seen activité génératrice uh-huh. de revenu wala xale bu ci jàng boo amee 11 ans 12 ans tu te ñu bëri ci ñoom après seen mariage dafay yàq seen jàng dafay yàqu donc moo tax résultat yi bu fa amee d'autant que ñoom nekkuñu ci même condition que Dakar Salamata mi ngi koy wax nee na genre que ñoom bibliothèque yi ñuy am Dakar par exemple bu ñu ko mënoon am foofu ñun accessibilité bi ñu am ci internet loo bëgg a seet seet ko en un temps record et tout ñoom bu ñu ko amoon xëj na seen ay résultats dina romb fii. i kii mention très bien la am bu rombee résultats yi fii mu xanaa day jàngal professeurs yi. ah macha allah mais man je voulais dire par rapport aux grossesses les enfants dans les zones euh, parce que dem naa Daara Jolof mais du zone rurale trop trop. Euh, ci département de Linguère la bokk defe naa. ci région de Louga. mais Fall nag zone rurale la mais comparé ak par exemple ay Latmingué ak yooyu zone zone bu considérable quoi. presque ville bu mag la Sénégal yi xam demoon la non non xam naa billaay téere maam xam naa daara Jolof de dem naa <laughs> mais je veux dire tey euh, les problèmes que nous avons avec les filles la majeure partie des filles en zone rurale mhm. c'est les problèmes de mariage de grossesse grossesse précoce parce que Mariama ba nga doon déggee résultat yi mooy seen lycée d'excellence. Mm. seen lii moom wax dëgg yàlla dañ ñun dañ koy rafetlu déjà parce que dafa amoon ay coow yu amoon ci avant baccalauréat bi wala ci période baccalauréat bi mooy affaire fuite yi. Mm-hmm. te ñii fuituñ. ñii jegewuñ sax fu ñuy fuitee ndax fan ne. xaw na sore ak fi nga xamante fii la coow li amee woon ñoom ñu góorgóorlu ba am ci cela veut dire li ba tey dafa am lu muy jàngalaat xale yu jigéen ñi ci Sénégal li dafay woonewaat palaasu jigéen ci société bi jigéen dafa am cër ci suñu société te d'habitude ci zone rurale dañuy faral di jël jigéen ñi di leen utiliser wala dina la exploiter ci benn façon boo xamante ne nii du yoon lii nii exemple la boo xamante ne c'est à saluer te di ci wax xale yi nga xamante ne ñu ngi ci zone rurale bi ñu topp ci tànk kii kii moom koy féliciter yàlla na ko ca topp te ba jigéen ñi nekk ci ville yi sax Dakar ak ñoom war nañ non fii moom xale jigéen xale Dakar non xale Dakar ñu ngi góorgóorlu xale Dakar yi war nañoo rus bu ma yaaxal ñi ngi góorgóorlu bourse yi nag xale yi ñoo ko mérité ñii la ñii ngi xam ne fiituñ te am ay mention très bien dafa am dafa am xamante ne dafa am solo te dañ ci war a bàyyi xel muy encadrement. Mhm. xale bi environnement ba nga xamante ne moom lay évoluer. Mhm. naam sax am na jëkkër wante soo seetloo ay parent peut-être def nañ encadrement ba nga xamante ne war na ca tamit mhm. mu am tamit compréhension borom kër donc euh, dem sëy ji aussi tamit taxul tamit nga war a mën a bàyyi jàng même su fekkee ni tamit soo tollee benn niveau bi aussi tamit loolu du yàq jàng dara parce que gis nañ ñoo xamante ne ñu ngi def étude supérieure am borom kër mm-hmm. te wàññiwul si seen si seen ba pare ñoom a yi euh, temps bi leen seen élève jaral très sincèrement ñun à Dakar wala zone yi gën a jege nii professeurs yi jaral c'est-à-dire fii sa doom da nga ko yóbbu ci école bu mën boo xamante ni dafa cher cours de renforcement bu muy def da nga koy fay euh, da ngay jël benn benn benn benn exemple Modou mbay mii mu ngi jàng terminal la nekk mu ngi ci école bu am tuut bu papam bu bëggee def mu def cours de renforcement en philosophie dañuy fay chaque mois dix mille quinze mille ba vingt mille. Mhm. nga koy fay maths da nga koy fay histoire géo da nga koy fay donc en plus de fay école bi tu es obligé de fayaat. cinquante soixante jàpp soixante dix mille francs pour ay cours de renforcement. Mhm. ñoom du seen cas seen professeurs yi dañ leen di topp ba ci seen ay biir kër parce que jàpp nañ ni que bu ñu xasee ba am élève bu baax seen devoir la ñu toppaat élève bi pour mu mën a am réussite parce que jàpp nañ ni que réussite élève bi seen ndam la ñoom mhm. donc je pense xamante ne ñun ñoo nekk Ndakaaru suñu ay doom moo xam ñu nekk privé bi ak public bi ñi leen di jàngal itamit ñu roy ci professeur yi nekk fii mhm. ak professeur yi nekk foofu du benn de Khadija loo ah, ko wax mooy lii sem boobu di Fafakura nga xam ne 100 pour cent de élèves ñoo admis ci ci BFM bi que de rejoindre cas bi mooy ñoom ñi nga xam ne nekk nañ ci zone yu xaw a reculé yi peut-être bénéficier wuñ ci yenn privilèges yi nga xam ne ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir bi ñu ngi koy privilégié et pour et autre euh, que je veux dire aleykum terewul ñu def le maximum pour am résultat c'est-à-dire comme ni ko Balde waxee encadrement bi da ci am solo ñoom c'est pas juste des professeurs c'est des éducateurs de manière générale. Mmh. ñoom ñoo leen di encadrer. Mmh. c'est-à-dire yemuñu rek comment ils détestent ces euh, matières littéraires te terewul moom elle brille sur ces matières là. donc ça veut dire que am na encadrement ba ca wax donc loolu mooy base bi en fait bu foiree rek day répercuté ñëwaat encore une fois sànni ma xeex professeurs yi mais ñoom en fait ñoo ci. am wàll taluñu ko syndicaliste <laughs> taluñu ko politique ñoom ñoo ci am wàll bi gën a mag. mais Pape Sine dafa am loo xamante ne pour mu nekk ay jigéen dafa am solo parce que soo jëlee maanaam engagement. international bi nga mm. xamante ne Sénégal moom la jël muy ci ODD ci cadre bi dañ ne éducation de qualité ñu ñëw fii ci Sénégal ñu ne paquet muy équité paquet bi ci biir paquet bi dafa am équité maanaam xale yëpp dañoo war a mën a nekk ci benn environnement. Mm. boo xamante ne ni leen ñu ñu mën a améliorer. Mm-hmm. seen résultat mm-hmm. ci ci ci ci ci jàng bi. Mm-hmm. te tey soo gisee par exemple foofu sa daara Jolof certes. Euh, soo xoolee zone rurale bi day manqué day faral di manqué ay prof lu bari. donc euh, alors que dakaar fii dafa am ay surplus de prof ci yenn matières te soo xoolee wàllum scientifique dafa am ay prof dafa manqué ay prof soo xoolee lycée boobu sax ma nga xamante ne xale bi moom la defe maanaam manqué na ñaa ñett prof mathématique ak ñaari prof histoire géo pure et dure démb euh, proviseur bi ñu ko woowee ci loolu la ñu wax nee na vraiment jafe-jafe yooyu aussi tamit la ñuy am pour nguur gi mën leen euh, jàppale pour ñu mën a am Euh, manque de prof de mathématiques yooyu tamit beneen difficulté aussi tamit bi nga xamante ne ñu ngi koy jànkoonteel foofu mooy accessibilité bi mhm. nee nañ pour nga dem ca lycée ba dafa dafa metti trop mhm. charrette mënu fa dem moto mënu fa dem donc dañuy dox ak seen tànk dem te su ma juumul daaw géej bi ñuy euh, bi fa ministre bi yor wàllu jàngale bi demee di inaugurer benn benn projet bu ñu naan euh, benn projet bi ñu naan Euh, ressources numériques parce que aussi tamit euh, doté nañ leen benn euh, salle. Mhm. boo xamante ne da leen di permettre ñu mën a avoir accès ci yenn ci yenn ci yenn document yi. Mhm. donc yenn téere yi. donc waxoon nañ ko ministre bi pour mu dimbale leen ci ci wàllu ressource donc jot na tey région de Louga. Euh, département de Linguère ak waa Daara Jolof ña nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk mbir mi jàng meeg jàngale bi ñu xool na lañuy ñuy mën a dimbalee euh, lycée boobu noonu pour accessibilité bi yomb. parce que daaw soo seetloo bu baax euh, CM Anambé Kouta dafa amoon 100 pour cent BFEM te lépp ay abri provisoire la woon. donc euh, président de la république njiitu réew mi jël benn dogal boo xamante ne def fa tabax fa ay classe te suma ma juumul daaw tamit euh, ministre bi ren demoon na fa pour inaugurer classe yooyu noonu mhm. donc résultat yi nga xamante ne élèves yi tey am nañ ko donc jot na ñu war a xoolaat euh, accessibilité lycée bi pour mën a élève permettre élèves yi mën a dem ci ci ci ci ci bërëb boobu sans inaa la xaw ma IA ñi fa teewal ministre bi te nekk ci région de Louga voilà war ngeen a dem foofa ca Daara Jolof xool nekk xale yi foofu voilà euh, damay damay damay ñëw juste ci li nga xamante ne mhm. moom la moom la Baldé indi tey mhm. euh, yaakaar naa ni ku ko gis comme ni ngeen ko waxee li nga fier rawatina jigéen ñi dinañ fier euh, bu mhm. baax a baax ci te suñu bopp ndax xam nga leadership leadership moom jamono ji jigéen ñee ko yor macha allah mais nag am am prof prof muy prof <laughs> <laughs> am ay prof yu baax comme ni ko Khadija waxee am na solo mais li ko ëpp solo yaakaar naa mooy bëgg bi mhm. ndax xale bu ñu la fayaloon cinquante ans pour ngay jàng alors que boo ñibbee sa kay tëj nga ko boo demee ci répétiteur ba bu lay jàngal sa xel a ngi ci sa téléphone portable wala ci sa whatsapp wala leneen je crois que ni euh, doo yenu mhm. donc li ci ëpp solo mooy Euh, li nga xamante ne moom mooy gëm-gëm bi ngay am pour ne yow euh, yaa ngi jóge ci point A di nga yegg point B. te yaakaar naa ne ñoom ñii nga xamante ne moom la fi ñoom la fi Baldé présenté tey ñoom ñëpp ci euh, ci loolu la ñu lañu lañu la ñu dox ba tax tey ji ñu mën a am résultat yu nekk donc xale yi dañu war a góorgóorlu ci jàng te xam ne jàng euh, metti na ñëpp xam nañu metti na ndax ñëpp jaar nañ ci mhm. mais boo demee ba yoo say diplôme ba toog tey ji nekk euh, nit ki nga xamante ne peut-être toog nga ci sa bërëbu liggéeykaay di nga di nga fier ci sa bopp donc mu leen di féliciter ñoom ñëpp bu baax a baax merci beaucoup Nabou man dama bëggoon lancer benn appel rek à sunu yaay maman Marème Faye Sall na jël ñaari xale yu jigéen yooyu ah dimbali leen ñu am bourse seen bourse yi ñu dem jàngi ci ah, bitim réew moom bu yoree bourse bu mu jëkkër bi moom jëkkëram d' accord. jëkkër ji il est assez compréhensif pour xam ne c'est son avenir. parce que compréhensif a tax mu jàppale. et puis sama gars yi aussi yëngal leen. ba pare balaa bourse bi bàyyi leen bal bi. jëkkër ji laa balaa bourse bi di ñëw quoi bourse mu tegal ko moteur. alors sama gars yi je voulais lancer un appel aussi au Baye Fall mais gars yi yëngu leen xale yu jigéen ñu ngi ñu demee le pion. waaye ñaari xale yu jigéen ñu am mention très bien ça a toujours été le cas peut-être que dañ ciy doog a def lumière rek mais ça a toujours euh, été le cas. man waxuma ah, benn raciste. <laughs> ci wàllu primaire bi aussi tamit soo ah. xoolee. Ah. Euh, xale yu jigéen ñi. ñoo ëpp xale yu góor yi mhm. mais lu ñuy gën di sori rek xale yu góor yi di gën a ëpp xale yu jigéen ñi aussi waaw mariage yi tamit mariage précoce ak uh-huh. grossesse précoce uh-huh. dafa bokk li li euh, naxasal uh-huh. euh, jàngu xale bu jigéen parce que soo seetloo bu baax euh, dafa am benn kuréel daaw géej bu génne benn bataaxal di wax ni y a près de deux mille deux mille grossesses entre 2010 ak 2014. c'est abusé. donc euh, donc di wax ni aussi tamit. Euh, loolu day day day day naxasal euh, xale bu jigéen mais tamit dafa am benn euh, circulaire boo xamante ne ministère bi daf ko génnee depuis 2007. buy wax ni xale bu jigéen bi même su fekkee ni dafa tollu ci diggante su présenter lu ñu naan benn certificat médical d'aptitude. war na mën a reprendre jàngam. Hmm. donc euh, pas comme ni ñu daan def waaw non faaw mu présenter certificat kayit xam nga comme que administration kayit la xam. Hmm. donc euh, il faut ñu ñu ñuy bàyyi xel. Euh, ci balde nag loolu dafa war a yor ay verre di lire ah moom. <laughs> gis ko ëmb nu naan la indil kayit pour ñu xam ne da am benn aussi mbir aussi tamit grossesse ah, scolaire yooyu noonu ñii ñi di wax xam nga dañ daan jiiñ souvent professeur yi. xam hmm. naa ni yow tamit da nga yab yi. Euh, samay xarit lañ waaw say waay wante <laughs> dee leen bàyyi mais ñi nga xamante ne ñoo amoon euh, jafe-jafe yooyu grossesse yooyu noonu. Mhm. xaaj bi yëpp maanaam seen moroomu élève moo leen ko moo leen ko teg. waaw dañuy génn loolu dag war nañ ci am lecture bu baax nga nga baal ba ngeen baal ma. mooy ngay expliquer mooy non non mooy cest à sa moroomu sa moroomu élève bu góor teg la grossesse. moom mu continuer di jàng yow ngay subir grossesse bi ah, xam leen seen bopp yéen a ngi nii toog di changer ay couches ak te dina leen jëlal lu ëpp 9 euh, mois ndax boo paree di nga yar di nga nàmp di nga jëm 3 ans 4 ans a am doom yéen. <laughs> non éducation la ñuy indiwaat gën ko mën a gën ko mën a yaatal. d'accord naa kañ nga koy indi. ku ku bëggoon écofam nga. mais dañ koy gën a kii rek def ko éducation sexuelle. lay nuyu nee na nam na maa ngi koy maa ngi koy fay ku baax la ban la baax. day baax man. bébé bébé maa koy encadré quoi année bii ñëw day def. bébé go rapidement merci beaucoup Ibrahima Baldé merci beaucoup à Nabou Ndiaye. Ah, vous avez été juste exceptionnel aujourd'hui les gars vous avez été vraiment été à la hauteur de mes attentes ci wàllu euh, violence bi ñu constaté ci arme port d'arme blanche ak arme à feu yi. ci wàllu rubrique code ak éducation vous avez été. top super macha allah vraiment macha allah. <laughs> Nabou wute nga ak Moussa. non dama c'est-à-dire. maa ngi koy nuyu moom au passage. waaw sama papa c'est le président des chroniqueurs judiciaires Ndoye Mali. mais tamit nag yéen éducation bi def na mars du mètre la fa. ay bi laa yàgg nañu waroon nañu laa teel a dàq kañ. alors <laughs> merci beaucoup on va regarder une petite vidéo histoire de vous installer un invité euh, am nañ benn invité bu bàyyi ko ba Ndar tey dafa def benn découverte scientifique bu extraordinaire c'est à couper le souffle on a aussi un invité du nord de Mounirou Sy xam ngeen ko dina fi dikk léegi ci kanam waxtaan ñu constitutionnaliste la ci li ñu war a wotee mooy carte euh, yi nga xam ne mooy suñu passeport yeeg euh, carte d'identité yu mag yeeg yooya ñoom ñaar lu ñu installé juste après cette petite pause Momo Seck le soleil yéene kaay les accueille à tout à l'heure